coowu làmb bi ñu ci indi coow bi nga ci coow su ma nee coowu làmb maanaam euh, ambiance bi nga xamante te ne ànd nañ ko ci làmb ji neexal bés bi taayal bés bi ndax ñoom ñaar dañ leen doon xaar ndax ay adversaire de taille lañu démb tuus nañu ànd nañ ambiance nit ñi sax dañoo mujjee fàtte si bu nga ak ki nga xamante ni mooy Caatu euh, Rebeuss ma bàyyi ko ma nuyoo ñu doog a dugg si làmb ji ci yan fay nuyu naa la. ñuy ziar bu wér a wér a wér grand bi ziar bu wér. di màggal xam nga ginnaaw guñ sant yàlla julli si yenn gi sant suñuy ñaari waajur. Mm-hmm. di sant axlu laamu ñëpp. waaw cat ba cat di sant tamit diaspora bi média bi journaliste yeeg ñëpp di sant waa koñ bi mbindam géejawaay gi xam di leen sant bu baax a baax di sant dama yooyoo gi xam sant suma grand alaaji njaay baax baax baax baax baax waaw. Euh, bi combat bi taxawee ma leen ci plateau ba. yéen ñaa ngeen xas-xas loo ku nekk wax maa la dàq bëri maa la ëpp doole. coow lu bëri woon. defe naa ne foofu ngeen foofu mooy deuxième fois ngeen gisante yow ak moom. waaw boobu mooy deuxième fois. deuxième fois mais ngeen ci nekk wane ne combat bu bu bu yegsee damay def ma sama moom nangam maa ko ëpp doole maa ko dàq ba fan nga tegoon ne yaa mën un giga déjà bii moo nekkoon sa premier combat. moom def na premier combat benn combat benn victoire nga war a jàkkaarloog moom fan nga tegoon ne yaa mën un waaw bon donc fu ma ko tegoon mooy maanaam mun naa ni seetaan naa ko bu dee benn yoon moom xamuma te tamit xam naa ne am naa qualité yoo xamante ni tamit nekk ci làmb xamuñu xamuñu Tidiane Faye euh, waaw waaw parce que maa ngi door a ren mais bu dee si làmb ñu ma xam moom xam nañ ni carrément. Mhm. ku dul mun naa koo daan. xëy na ma jox ko cër boobu tamit ma dem ba benn moment bi ma xam ni carrément un bii nii xama dëggal sama bopp ak fula ak la ak jom moo koy daan te aussi tamit mu nekk jàmbaar. Mm-hmm. waaw mu nekk jàmbaar boo xamante nii démb bu fekkoon ni maanaam damaa bëggoon lu nooy mun na ma daan sax parce que def na lu ma daan mais xëy na xam nga daa am ñu topp suñu ginnaaw muy mbooloo bu takku. mais démb ñu gis bi ngeen ñëwee ci stade bi. muy def ambiance ñëpp kontaan mais. nga garder calme bi lan la waaw calme bi dama koy garder parce que benn moment bi damaa dem benn moment bi damaa xaw a tiit si laamu ji tuuti. da nga tiit waaw tuuti tuuti si benn moment bi parce que man xaw ma lu yàq làmb gaw ma ko bugguma ko man mun naa ni tey yàlla tere daanu moo ma gënal ñibbi si ñu ne laamu ji daa toj xaw ma ko. parce que gis naa un di créer yoo xamante ni mu leer na ma sama gaay bu ñu leen si toppee tey laamu ji du am après à la ñoom gis nañ ma sama calme sama trésor xam nga Mm-hmm. xam nañ ñu bugguma làmb ji am coow ñu bàyyi mu sedd mais bu dee dëgg la six quarts ba sept ñoo fi déparé dama duy làmb ji ba mu fees promoteur bi xam na ci dara mais dañoo nekk ñoo xamante nii ay ndaw euh, espoir yoo xamante nii ñu gëm seen bopp nangoo liggéey muy maanaam association dama yooyoo gi xam nga ñu nekk sama ginnaaw di ma jàppale waa garage yi loolu moo tax ma liggéey tamit lu daan te ragaluma loolu. Mm-hmm. waaw xëy na avantage boobu lañ am si moom mais moom moment bu muy wax xëy na mu ngi wax ak premier combat nga def victoire ànd ak mbooloo confiance bi day gën a ku mm-hmm. kuñ la tegal da ngay naan yaa ko mën mais man moment boobu xam naa ni kii nii bu ñu demee si sañ-sañ wala si bëre xam incha allah bu dee côté boobu noonu moom laa doon wax aw ma lu ma ciy xel ñaar te démb ku ku ku ku weddi woon rek gis nga ko euh, incha allah dugg si ci digg géew bi yéen abdu bi sifflé mu wàcc nga wàcc la moo tax bëggoo woon jàppante bi waaw parce que dafa xajam boo déggee maa la koy wax suñu premier kii maa lay naan maa ko gën a xajam xam naa ne un dafa xajam mhm. dafa gaaw parce que boo xoolee kuu bi mu ko dóor dóor mu daanu la woon mais dafa gaaw ba pare tamit indi na doole yi tànk moo tax mu réussir coup bi def génn ci ñu gis ne dafa jege suuf. Mm-hmm. bi nga avant nga koy dóor defe naa ne jàppante ngeen mu wàcc sukk bët oomam. waaw gën a wàcc fàq la. nga mm-hmm. ñëw mu si fàq ma nga wàccaat tamit yow. samp sa bët oom daf maa fàq ma ñëw ci suuf mu mel ni luy téye sama tànk pour di ma appel bële wan na ma damaa bëgg bëre te sama tànk bu mu téye ma wàccee ko si suuf pour won ne ko carrément bërëb bii nii boo bëggee ñu dem ci moment boobu nag bi ma gënee wàcc ci suuf. si hmm. la moralam xawee damm si la xamee ni kii décidé na pour. bëre moment bi ngay wàcc suuf maanaam waa mais Tidiane Faye lan lay def nii. waaw parce que yow dama xam ne bu la faaxoon tamit est ce bu la faaxoon mënoo ñëw moment bi ngay sëppee sa ñaari bët non loolu du ma ñëw loolu moom séntu woon naa ko parce que loolu bëre duñ ci duñ ci duñ ci ay ay ay gan yàgg nañoo bëree maanaam dañoo juddu bëre. Mm-hmm. maanaam lu tax ma def loolu man dama koo xam da doon gën a yombal sama làmb ndax daa féete suuf. Mm-hmm. jàpp naa ko dem naa ba benn moment xam naa mu ngi tende ay prise yoo xamante nii mun na ko réussir ma wàcc suufa suuf nga xam ne dootul mën a jaar fenn léegi moom bu wàccoon di ma jéem a fàq man dama koy yokkal lu mbër yi naan yokkal comme bu ma fàqoon nii dama yëkkati sama benn tànk pivoté ko làmb ji jeex. boobu lu ko daan laa doon laa doon lijjanti mais ñu ma xam moom. xamoon nañ ni carrément bi ma wàccee ci suuf xam nañ ni sa waay na pour daan ko ñu ma xamoon. mais bu ngeen jógee ci loolu ñu gis nga doo ko kuu bi ko doo kuu defe naa ne kaaw waaw ba dem. waaw topp loo ko moment boobu. waaw boo xoolee ci biir image maa ngi loolu sax parce que coup bi bi ma ko ko dóoree bu mu pivoté daf maa jaaxal. parce que coup boobu noonu nee naa dama ko séntu woon dóor benn coup mu daanu ñaar laa ko indiloon démb buddi ba taxaw dóor ci suuf mus naa la ko wax avant ñoo bëre signature bi wax naa la ko. nee naa la dama koy dóor mu daan wala dama koy yenu ba taxaw dóor ji suuf dóor mu daan moo ko dóoree coup bi porté mu def dem flexion instant boobu lu tax ma muuñ damaa kontaan parce que dama xam ni am na doole. non lii nii lii moom dara lii yaa gën judduwaale la mun naa. Hmm, pour da nga cee lii du dara judduwaale la ci benn problème aw ma benn dëgg yàlla. comprendre hmm. moo tax bu ma ko dóoree coup bi bi dal na. parce que instant boobu coup bi moo ko dóoree dafa waroon wàcc si tànk yi mais bu mu defee demi flexion mu na ma xam ni kaawoo dëggu na. mais moment bi nga xam ne doomu daanu nga dóor ko te daanuwul. amuloo jiixi jaax ne combat bi est-ce que xawul xaw ma ñu yàq boog li ma li ma andi woon est que yàquñu ko ci diggante bi. non non parce que maa doon sentir lépp a ngi baax parce que dóor mu daanu bi nekkul si gàllaaj laa ko yaakaaroon man dama xam ni un day ñëw. non mais mënoo mënoo mënoo mënoo calculer dóor mu daanu depuis. deux semaines xaw un mois. ne ci liggéey laa wax yaakaar moom que dañ la koo déy wala ñu jox la loo xamante ni nii. da koy téye waale. mais nekkoon di si liggéey rek xam nga bëri dóor lañ wax. Mm-hmm. xam nga bëri dóor la ñu wax. dama nekkoon di si liggéey te tamit démb tamit mënuñu woon nelaw parce que igiri langsaane ak igiri papakan dañoo ñëw dooleel ñu may sant mbër yëpp cat ba cat. démb fii foo saani mbaatu mu tàgg bi di nga sant di nga gërëm nga dóor ko mu mu def demi flexion nga jàppante waat ak moom fan la bëre bi jeexee. waaw bi ma ko dóoree xam naa ni kaawoo déggu na. Mhm. parce que damay làmb bi ma ko dóoree xam naa ni kaawoo déggu na bu mu wàccee ma xam ne am na lu mu dese moo tax maam ma fekk si waat ko. Ah, bëri na mbër waaw. waaw des fois nga gis mbëng kaawoo dëggu na daw waaw fekk dese na lu bëri. daa dese parce que bu nekkoon 100 la dama ko xaaj. bi ma ko dóoree coup bi dese na 50. lu tax ma ne dese na cinquante parce que dafa def demi-flexion pivoté kon dese na doole tuuti. ngeen jàppantewaat mu bi. ci ci que moment boobu coup bi ma ko dóor kaawoo dëbu na léegi bi ma ñëwee ma méb ko mu négocier jàppante bi xam naa ni kii kaawoo dëbu na bu ma ko. jàppee doole jàppante bi continuer xeex. que bëre bi dama koo bëgg après parce que comme xeex nañ dóor naa ko. Mhm. kaawoo wul benn moment bi tamit xam nga ma ni kii nii comme ñëpp nee nañ dafa mun bëre naa ko fekk si bëre bi mooy li ma def démb. xam nga ñëw fekk si ko si bëre bi faaq ko comprendre nga mu xaw a dëgër ma roof caxabal mu xaw a tekki comprendre nga ma jàpp loxo biir si la mu pompé ñaari ibirkil moom xam na li may wax waaw dóor na ma ñaari ibirkil yu dal. parce que man bu fekkoon damay mer làmb wala wala maanaam ma doon tiit wala may jaxasoo sama làmb foofu la doon yàqu ndax foogeewu ma ko jàpp naa loxo droite. ma nekk fa lu yàgg un tamit xam na ni kii lu tax mu jàpp def teeg pexe lay wut. Mhm. si la jéeg-jéegee dóor ma hypercule bu ma bett tëj. dóor ma ko mu porté bu baax. mais si giwu ma fii la dal. fii la ma ko dóor si maasuwaar bi tëj. ma xam ne su ma sigee carrément mu naam dara ma sigi tuuti. mu jéegi-jéegi waaw mu jéegi jéeki xaw a sànni fee loxo bi jéegi-jéegi. arrière loxo bi dugalaat hypercule bi tëj. mu dalaat mu dalaat maa ngi ne tekk rek si laa jéegi-jéegee. faax ko mu ñëw dóor ko ñaari kii mooy ba mu yàgg protest daal bi boo fekk na mu laal ma ñaari yooyu jot na ci am waaw <laughs> di nga seedaan lool dama ko doon waaye léegi dañ nga de <laughs> la nag mais démb moom di <laughs> champion la góor fekk nga ko ci làmb euh, bëri moom daan ko tey nga dajanteeg Tidiane Faye Tidiane Faye daan la da ngay gën a defar waat rek gën a liggéey te xam ne làmb nga sa kanam ndax démb dégg naa ay promoteur am na yu ñuy remondaat ci suuf yàlla na sotteeg jàmm ak salaam continue waaw un moom xanaa di ko ñaanal jàmm rek waaw su benn côté ndax jàmbaar ko protestant bi parce que man chute bi daf ma rëcc da rëcc parce que làmb ji daa gaaw mhm. làmb jinne la woon démb làmb jinne la woon démb boo xoolee bu ma bu ma sigee bu ma dooree ñaari yi ma xam ne 1000 ak instant bii nii bu ma nekkee jàpp rek mun na ma dóor ibirkil boo xamante ni nii xam nga mën na yàq sama làmb si laa jékki-jékkee ma ne un xaaral si laa change de changement de pied jàpp beneen loxo gauche sukki ko ñaari droite si kenn doon fii. benn fii laa ko dóor mu xaw mu ma fëggaat ko beneen bi mu yaay portes dent bi at bi comprendre loolu moo leen tàqale ko voilà loolu moo ñu tàqale. boo xoolee parce que benn instant mu ngi jël protège bi dem ñu ko koy sottil ndox. waaw ñu ciy def ndox. boobu eh. boobu affaire yee tar moo ko def espérer coup bi ba mu ko jëlee carrément parce que njëkkoon na bu mu njëkk a jël coup boobu kaawoo dëggu na jëlaat na ñaari ku menton yu mel noonu man xam naa ne jeexal na. boo xoolee bi ma ko jàppee damaa jékki-jékki wàccaat ci suufa suufa suuf mooy li ma ko doon wax maako moom. Mm-hmm. ma wàcc ci suufa suuf firi bàcc. Mm-hmm. waaw mooy coppit ñoom bi ma doon wax mooy maanaam lii laa doon juñu gaa yi. dama bëggoon kele bi nga bi nga ko daanee moom da doon tànte mbot wala nan la demee noonu daf mel da doon tànte mbot nga yokk ko de. waaw parce que instant boobu noonu moom jekkuwul damaa jàppul loxo droite comprend nga. Mm-hmm. ma jékki-jékki wàcc ba suuf amaat loxo gauche ma mépp ñaar yëpp si laa jékki-jékki xëcc ko ba mu ñëw wàccaat si suuf ba a jug ak moom te boobu dama ko doon buddi taxaw. ba mu demee bañee bañee bañ ba mu xam ne ni carrément instant bii nii jug rek moo ci des. Mm-hmm. si la dóoree mbootu tàqali ko yàlla naa ci génn. waaw ba mu dóoree yàlla naa ci génn bi nag. ma rocc sama sama loxo bële mu dem léegi benn moment bi mu ngi def trois appuis gis na mm-hmm. may rocc di waajandeel mu gaaw a soos tàng bi parce que boobu noonu waaw. da nga doon bëgg non moment boobu dama ko doon suqi ba mu bàyyi. da doon bàyyi moment boobu xam naa. loolu daal mu yomb. non non non non non woon mu yomb parce que damaa war a wone sama bopp te sànq maa ngi koy wax instant bi mbooloo bu nekk sama ginnaaw macha allah gunaas guy ga xam nga garage marché bees yi fii nii minam gi Ababacar si bi jàpp monument Caaroy jumaa Caaroy ja xam nga dafa nekk ñaari parti waa yëmbal ñëw waa Alba xam nga maanaam dama dama def enfant de rue dama bëri ay xameel macha allah te ñëpp ñu si bëri dañ ma xam si làmb wóolu ma si gëm ma si ñoom ñoo ma indiwaat. Mm-hmm. te incha allah prochain combat. nit ñi dañ ci xam dara dinaa ñëwaat si yeneen i façon mais nga ñëw euh, fekk un giga coow li topp ko. Mm-hmm. nga daan ko sa buntu làmb ubbeeku foo jëm. Siteu mu ngor moom bëreel grand combat moo daan caatu rëbës loolu làmb la. waaw bu ngor nañ ma ko jox ma bëreeg moom. Tidiane Faye nag fuuy nga de yow benn combat euh, nga daan. waaw booy tegle fi ay victoire ak yow xanaa sax di nga ne ay ay ay ñoom démb gis naa fa ay ndongolo ah gis naa fi yeneen booy. non nongolo. nongolo nongolo mbër la mënuñu ko bañ ko yi mais maanaam damay wax ñoo xamante ni làmb boole nañu boo nee Siteu bu Ngor nga bàyyi ko foofu. Eh, comprendre nga jaamu gën daal benn combat benn victoire. <laughs> jaamu gën daal lenn laa bëgg ñu xam ko. Mhm. saret bi. naaru góor bi maa ngi ko gaare foofu ku moom adversaire yu ma mënti am li ma leen waxoon ci seen sit bi wasaare bi nii. Mhm. tey laa koy gën a dëggal dinaa leen jàpp benn par benn ba bërek tarkindaa bu mag bi loolu li ma lu mu gëm la. incha allah sànq nag am na ñu ma si tudd seen i tur jarul sax ñuy laajaat te am na ay revanche yu fa am addina xam nañ ko. te loolu noon man dama koy loolu noonu dama koy bëre ñu ngi foofu. comme kan. Michael Fora mu ngi foofu. Euh, boy bi mu ngi foofu liis dégg naa dañ koo aj mu ngi foofu moom tamit temps yi sonn na trop bëgg na koo dimbali mu ngi foofu ci gaam gi lay bokk. comprendre nga caatu foora mu ngi foofu rakk ji tamit maa ngi dégg ñuy wax ay ay réglage combat am ak beneen mbëru comédien boo xam ni xam nga. est-ce que du kii. xëy na kooku euh, moom alliance Balde. non maa ngi dégg am na benn mbër boo xamante nii ku naan sama maam nee la mbër boobu nu mu tudd ay sama maam fukki góor lay reyanteel. léegi waaw. non ah ah. maa koy njëkk bañ. ah man daal non loolu Alboury daal dof. sànq sànq wax naa ci. <laughs> ba ci Alboury moomu sama adversaire la ñoo ñu bëree. sànq. xoolal sànq waaw ah, non déglu ma dañuy waxtaan xam nga nag bul am victoire tax nga ma wax Alboury Alboury Tidiane Faye du combat man nee naa la ay ndongolo ay keneen ak keneen wuyul fee. waaw. waaw. maa ngi koy am waaw. Hmm. xam nga ne waxuma say adversaire wala boog nga ne nga ne nga ne ñenn ñi sax mais ay albuy loolu du combat gars yi dañ lay xool dañ lay kii euh, koo aj mais yàgg yàgg ku ñëwul ren déwén day gën a metti si yow rakk ji barki déemu la fi bërëg Bou Siteu may encouragé Bou Siteu di ko ñaanal yàlla may ko xam nga beneen combat ay ndami ndami ndami ndam xëy na nu mu demee la rek moo waral mais Bou Siteu champion la du moroom boo yooyu. fii la dëkk xam nañ ko sa diggante sa diggante ko laax. waaw amul kenn koo xamante ne nii bàyyi naa la fi si làmb mais suñu staff maanaam staff yi nii sama manager promoteur yi commencé nañ ko mais képp ku ma làmb booleel ki ma war a bëreel teggiwu ma fi nii Jean teggiwu ma fi nii Paul. caatu rëbës mi bëri mi daanu bëri déem suma grand combat moom it waaw instant yi xam naa ni sonn na sànq am na fu ma ko wax bëgg na ku ko jox loxo mun naa ko tàllal loxo nag mais taxul mu yomb de. waaw. na ko bëgg waaw ay waaw mun naa ko parce que instant bii nii bu dee coow la macha allah mu ngi fi te ak promoteur bu mu mun ti doon boo ñu tëggaatee dinga xam ne gone yi fu mu ne nii jóg nañ ko waa ak yéene parce que ay xale yu ndaw ñoo nekk suma ginnaaw xam nga ku si mel ni Iba ak Dama yooyu si lépp côté yëpp. boo amee kàddu mujj mën nga continuer tàggatoo waale. gërëm ñenn ñi après ñu ñu ñu toj. waaw suma kàddu mujj daal mooy maanaam jaamu gën gi li ma la wax rek. fas bi mu ngi foofu gaare naaru góor la waaw jàkkeer xotti juróom la mu ngi foofu taxaw guddi guddi guddi guddi ku ñëwul ren déwén day gën a metti parce que liggéey bi tàmbali nañ ci waaw euh, di sant nag waa koñ bi cat ba cat suma yaay yi suma papa yi xama di sant cat ba cat bàyyiwuma kenn di sant Amath Jara maire Pikine di sant Moussa général moo Gueye xam nga Moussa Aba général bu Modou Gueye maire la monsieur le maire. ma leen di sant ñoom tamit dañ ciy jàpp bu baax baax jaraaf Sow di jàpp sumay mbir la maire moom tamit xam nga euh, di santaat géejawaay gi waa marché bu bees waa Gunaas waa Guy waa Monument ba waa Alba xam nga champion réparé numéro 2 Tidiane mii tamit xama ma koy ñaanal suñ borom defal ko ay combat yi combat yi combat lu mu bëgg yàlla defal ko ko. parce que démb tamit ñëw na ak yéene dëgg yàlla igiri langsaane gi igiri papakan gi entraîneur yi ñëpp mention spéciale ah bàyyiwuma kenn cat ba cat xam di bëggee suñu grand yu ñu fa fekk muy ñoom maarle xam nga gabaar xam di bëggee waat Pape Thiam baax a baax benn góor xam nga di bëggee igiri bi cat ba cat atourment borom xam-xam xam nga mënuñu buñ limee dañuy juum bàyyiwuñu kenn cat ba cat waaw di gërëmaat tamit waa lew na bu baax a baax a baax a baax a baax ndax xale yu jigéen ñi saaji nañ démb def nañ ba mu neex baara mbay jiit baara mbay nañ ko xam nga kuus naa sa mu tëddi mais tamit xam nga di ko ñaanal tamit prochaine fois yàlla defal ko jaamu parce que champion la man de dëgg yàlla waxoon na ma ko te dama koy dëggal tey. Mm-hmm. woon na ma yow dag maa bëgg te noonoo non combat rek moo ñu boole woon mosuma koo bañ parce que jàmbaar faax tëdd la. Mm-hmm. àddina ñoo topp si ginnaawam yàlla na ko yàlla defal jaamu. waaw champion liggéeyaatal rek waaw ndaanaan nga liggéey nga démb yàlla moo ñëwul incha allah di ñaan suñu borom suma carrière xam nga mu teg ci loxo moo àgg xam nga mu may ma wér ak kàttan waaw suma papa nag ak suma yaay ma leen di sant bu baax a baax a baax ñoom laa tàmbalee lépp ñoom la ñoo sonn si man xam fu ne ma fa doon dem di daj lu ne ñu may récupérer fu ne ba léegi tey macha allah làmb kese ñu ñor leneen ñoratuñu. amuñ dara loo xam ne fëq nañu lu dul làmb moom lañu bëgg xam nga ñu ci wasluwaat ak di ñaan waa koñ bi ñëpp nañ ñu ci saakul ñaan di nuyu maire ak ñëpp bàyyiwuñ kenn cat ba cat xam am di Moustapha chef de garage saret yi xam ak Malick suma grand MG xam ñoo ñëpp yàgg jàpp ay baaba acteur xam nga boroom daaru tamit nekk kenn si man laasum mm-hmm. xam nga champion la jàmbaar faak tëdd la di sant waa kër meer rakki gi xam nga waa Seras tamit doon ma dagal carrière bi waa Seras boo am nañ ci kii sama part responsable maanaam sama daan ñoom am nañ ci part responsable. Mm-hmm. parce que ñoom ñoo may goral may lekk di ma jox xaalis di ma jox transport waa Seras ku si mel ni Bamba Jali. Mm-hmm. xam nga ma koy sant di ko gërëm di sant gërëm Sambel borom jaamu gën sama mag mu ngi Seras di ko sant di ko gërëm di si sant ku si mel ni Modou Baas yi xam nga moom yàgg na. regroupement beeg yu si dem lu jëm si wàllu ndaw li yëpp ñoom ñoo koy def di yëkkati seen xaalis di ma ko jox xam nga. cat ba cat ñoom Ibrahima Pula Fuuta ñoom Amadou xam ñoom ñoom du Maysa ñoom Baro xam nga ñoom Baron Gunaas ma doomu ndey di bëggee ñëpp cat ba cat su ma limee damay juum. xam nga instant bii nii daal Tidiane Tidiane Sénégal la Tidiane Guédiawaye la Tidiane Mignane la xam nga tamit di jégaluwaat. kullu kuy seetaan ku mun di doon bu dee wax nañ fi loo xamante nii day déranger nit rek ba tax ni nga siy gis sa bopp nga jàpp ni ñun ay nit lañ motuñu xam nga di santaal ñëpp di la sant yoo tamit di la gërëm. Mm-hmm. parce que mun naa ne jiga woo ma quoi yaa ma njëkk a macha allah waaw te am nañ ci yaakaar ëllëg. gis ngeen mbokk yi seet naa Aline suma rakk tamit ma koy ziar di ko sant bu baax a baax a baax sant Iba Ido xam nga suma rakk yi Xadi ak Siro xam nga Moussa Apple général mason spécial jégalu bu wér a wér a bébé Modou di ko ñaanal suñu borom defal ko combat bii nii sotti parce que adversaire bu ñu ko jox rek xam nga rek te mbooloo ngi si ginnaawam yàlla na yàlla defal jaamu ñëpp di bëggee bébé Balla ñoom aatu gaa yëpp xam nga waaw kontaan naa xol sedd. gis ngeen mbokk yi noonu lay demee faw ñu bàyyi leen ñu gëm ndax làmb dafa metti ndax mbër mu ndaw doy sonn. saa bu amee combat ñi ci jàpp day bàyyi ñi koy yéene day bàyyi ñi muy ñuy toog fu sori di ko ñaanal te gisu leen tamit day bàyyi moom tamit fu ne mu dugg fa ni lañ koy defee ni ma koy wax chaque jour rek xàmmewuñ mbër mu mag xàmmewuñ mbër mu ndaw fépp foo xamante ni do yaakaar nañ ne day doxal làmb wala fépp foo xamante am na yéene dem fa dinañ fa dem jàppale mbër mi waxtaan ak moom mu wax ci li mu jëm wala ci li mu jóge wala ci li nekk ci kanamam daa am loo fàttale waaw sama benn grand boo xam ne mënu ma koo fàtte xam nga Moussa Fall Diagne bàccu ndooy xam asan ruku mbër dañ ciy jàpp ñoom tamit bu baax a baax a baax Sira Sow borom Petersen xam nga ñoom Pape Gueye ñoom Libaas Laay professeur xam nga waa wari bi association dama yooyoo gi bàyyiwuma kenn loppi suma ma ndaanaan ñoom Bamba xam nga ñoom Amet indi ndugg yeeg ñëpp waa arsin marsin gi bàyyiwuma si kenn cat ba cat gis naa liggéey bi gis naa jàpp yàlla leen yàlla fay seen xaalis ngeen jël def si waaw lu si des maa koy mootal yàlla na yàlla def jaamu kontaan nañ baa baa baa baax. ok di leen dig daje di leen jox di leen jox di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër ci Wassare Lamb jaa ngeen jëf.